الأرض asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, ci ndigalu ki ñu fi indi ñu ñëpp ñu bokk jàng faatiha juróom-ñetti quraysh falaxe ak naas ayatul kursi tëjee ko salaatul faatih ñu tijjee ko jotaay bi incha allah bismillah ñëpp di bal àq ñépp ah di ndokkeel ñëpp ci bés bi ah di nuyu ki nga xam ni wax dëgg neex yàlla suñu lépp la moom moo tax soxlawuñu bàyyi soxlawuñu yaay ndax weesu na ñaar yëpp ci ñun te ñu ciy sant yàlla bis bu nekk kàddu yi jarte guddal ndax baatam kàddoom moo ñu fi indi kon nag dañoo sañta bañ rek waaye ñun ci suñu bopp xam nañ ni déglu ko moo ñu gënal kon nag xëy na ci ndigalam dañuy jox rek suñu mbokk pas-pas Aliou Dia mu teg ci ñaar ñetti baat bu ñu paree ñu jox ko moom mu jox ñu jàngale bi mu ñuy dil incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu sëriñ bi si ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar mbokk yu tedd yi daje fi yépp tey te yow rekk nga tax ñu jóg nag ah sëriñ bi dama am yóbbante pour yow yóbbante waa senegaal pour yow yóbbante waa àdduna bi pour yow yóbbante waa Europe pour yow ba ñu commencé liggéey bi ba tey ñu ngi dajeek nit ñi dama dem Europe ma gis fa lu doy waar suñu mbokk yi ci jasporaa bi ñépp taxaw bi ñu fa nekkee kenn yendalul kenn fanaanul ñépp taxaw gunge ñu ci mission bi nga xam ne moom nga ñu dénk ñu lay féddali kóllëre bu baax a baax a baax di la wax ne ñoom pare nañ pour candidat du pëpp ñu gunge ko ànd ak moom ba biir palais incha allah a ah, ñu ñëw it dugg biir Sénégal semaine bii passé ñu nekkoon département de Mbour sëriñ bi ñu lay féddalil ni waa Sénégal sonn nañu sunu mbokk yi réew sonn nañu amuñu ndox amuñu courant amuñu fu ñu fajo amuñu yoon amuñu dara ah ñu wax ñu kontaan bi nga xam ne am nañ ko ci suñu taxawaay ci fi nga xam ne fa la ñu bëgg a yóbbu senegaal ci li nga xam ne ñu ngi koy waxtaan ak ñoom mbokk yoo xam ni bokkuñu diine recevoir ñu ci mission bi wax ñu seen taxawaay wax ñu yaakaar bi nga xam ni moom lañu am ci ñun jàpp ne war nañu mën a taxawu réew mi war nañu mën a tegaat réew mi ci yoon boo xam ne sénégalais bu nekk ak foo mën a nekk dinga ci gis sa bopp ñu la koy sante di la ko gërëme bu baax a baax ah mbokk yi nag ma bëgg a wax ak yéen sëriñ bi warul toog sax ñuy politique mais dafa jaadu taxawaay dafa jot takku jot na sunu réew sonn na suñu doomu waa réew sonn nañ dañoo am devoir ak responsabilité devant l'histoire te dama koy wax tout le temps ku nekk jóg takku taxaw ba sunu réew ñu jot ko delloo ko fi nga xam ne foofu la war a nekk te ñu liggéeyal réew loolu mooy sunu mission loolu mooy ci li nga xam ne ci lañu nekk ma bëggoon ci profitoo gërëm ñépp nag ñi ma àndal di liggéey amuñu moroom du ñu yend du ñu añ du ñu naan mais kenn jàmbatu ko ndax mission bi nga xam ne bu am solo la te ñu koy taxawoo waa Sénégal a ah, di wax rekk si yaakaar nañ sa ñaan bu baax a baax a baax fu ñu dem kilifa gu ne seeti nañ la seeti nañ imaam yi seeti nañ chef de village yi seeti nañ abbé yi seeti nañ ñépp kàddu gi benn la ci yéen lañu am yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu incha allah ah di wax duma guddal di la sant bu baax ah di la gërëm di waxaat mbokk yi rek ne toogaay moom amatul toogaay jeex na noppalu jeex na ku mën a jàpp ku mën a taxaw ku mën a dem seeti nit waxtaan ak moom nga seeti ñi nga war a seeti waxtaan ak ñoom ba incha allah li ñu bëgg yàlla defal ñu ko le 25 février incha allah li may wax rek mooy benn option rek la ñu am soit on gagne ou on gagne ou on gagne ou on gagne amuñu beneen option donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di baalu àq loolu bu baax a baax sëriñ bi ci kaddu yi ah di baalu ak encore une fois di delloo kàddu gi jërëjëf si assalaamu aleykum ah tabaarakallaahu ñu ngi nuyu sang yi fi toog yëpp sangu diine yi sangu tariqa sangu famille yi sangu daara yi yéen ñëpp góor ak jigéen ñu ngi leen di nuyu di leen masawu coono dëgg yàlla yéen a ngi yendu ci naaj wi ngir yàlla ak li ñu bokk ñu nuyu itam sunu capitaine Cheikh Ahmed Tidiane nuyu Mam Babacar Sy waaw nuyu itam Pape Cheikh Ahmed Tidiane nuyu itam Mouhamed Moustapha bi borom këru Soxna Fatima nuyu itam Soxna Umu Xayri Si waaw fa tabarakallahu ah mu mel ni itam sunu bokk yi ñu ko daan bokkal yépp mu di imam Cheikh Tidiane Mbeng mu ngi ànd ak sunu candidat wu bopp mu di Alioune Mamadou Dia waaw wa tabarakallahu nuyu itam collaborateurs yi mu am yëpp ci biir parti bi li ci amoon solo wax na ko rawatina itam ñun am na lu ñu sañul mooy di tànn teg ko ci sunu bëgg-bëggu bopp loolu sañuñu ko waaw te dinañ ci dellusi mu mel ni tabaarakallahu dañu nekk ci pré-campagne am na bañ nit ñi jaaxale sax ni kon tey combinaison lay sol ndax yére yi sëriñ jeex na waaw maa ngi tooñ capitaine léegi ma ne ko bu ma yëgoon ni nii nga sañsee kon dinaa sàkki pexe fa tabaarakallaahu responsable yi nga xam ni ñoo yore daayira bi ak responsable yi nga xam ni ñoo yore parti bi ñépp ñu ngi fi toog ndax man mi fi toog tey ñaari casquette la fi toogee toog naa fi en tant que responsable moral du daïra mais toog na fi it en tant que président du parti waaw waaye waxtaanu daara yi ñëpp ko bokk ku ci tey lu tuuti daa ci war a mën a gis sa bopp wa tabaarakallaahu maa ngi koy gis ci gént rekk ma ci waxtaan ak xalifa Sarr bii waaw waxtaan bu am solo mu mel ni imaam Cheikh Tidiane Niang mu ngi toog daan ànd ak imam Moussa Gueye am naa sunu invité yi ñu ca bari tabaarakallaahu am na ci ñu ñëw peut am na ñu nga xam ni ñu ngi ci yoon wi di ñëw mu mel ni nag waxtaan bi lu bees amu fi damay gis bi ñuy jógee dakaar di ñëw kelk kilomètres yi ñu dox ma gis benn tableau ñu bind rappel boo dawaatee it la même chose gisaat ñu bindaat rappel di nga ci romb lu mat fukk lu mu bon bon bala ngay yegg si Tiwaawan bala ñuy sore sax dañu gis doyen bi Cheikh njaay Ndiaye wa tabarakallahu di ko nuyu di nuyu waa këram yëpp xam naa dinañ ci dellusi mu mel ni rappel yooyule presque moo tax ñu ñëw léeg may laaj sax ndax jar na ko dama dégg benn mbokk ci ustaaz yi muy def waxtaan bari ci démb Mourchid TV teg ko mu wax ni li ñoo tuddee embouteillage te muy am ci oto yi ci mbedd yi mu ni baye ñu jàpp ni wax yi embouteillage am na ci ndax ñëpp a ngi wax ku xam dina wax ku xamul dina wax looloo taxoon góor gu tedd gi Seyid Cheikh Ahmed Tidiane daan wax ni bu ñépp dee wax boobu noppi jot na mais am na ñu sañul noppi lu woo tolloog nag Sénégal moom Sénégal la tudd kan naa yéen a ngi fàttaliku sunu mbokk Sidi lamin Niass yal na ko yàlla yokk yërmande ca sunu université Ramadan yu jëkk ya ca bayaal ba mu ni mu kenn mënu leen xam ndax bu Serigne Moustapha waxe ñépp génn ni waxati bu noppee ñëpp génn ni waaw lu tax mu noppi kon mu dellu ci li góor gi waxoon rek koo xam ne c'est lépp contentieux la waaw loo def rek mu jur contentieux waaw bu boobaa yaay xam sa bopp rek dootoo àtt sa bopp ci nit ñi waaw bu ko defee kon nag benn nit def ma seetsi ni ma lu tax télévision bi ñoo tuddee Al Asfiya dina teg Sénégal yépp seen waxtaan ba mu des yow lu tax ma ni ko laaj leen ko ñoom parce que man awma réponse bi parce que duma leen seetaan ma ne ko bu ñaareel bi itam man benn principe laa am mooy benn baytu arab buy wax ni ida kasura zubabu ala taamin rafaatu yadi wa nafsi tashtahi mu ni ñam lu mu neex neex neex bu ko weñ yépp di biiw man ma seppi sama loxo ndax séexlu waaw ma defa ni loolu nag mu am tey bi ci des nag wala fa ko wax kuy wàlliyaan boobu sa kër dafa tëggul ma defa ne kon nag ak Mourchid TV surtout bi mu duggee ci buggee bi ak léegi lay jeex na waaw bañ bañ bëgg waaw waaye itam kan moo sañ a wax ak kan moo sañu la wax parce que sunu boroom dafa séddale kàddu yi ci ñaari aaya benn bi mu tudde ko wa jaala kalimata alladina kafaru as sufla beneen bi mu tudd ko wa kalimatullah hiya al ulya yaay seet nag foo ci bokk ndax ci as suuf laa nga jëm wala ci al ulya la ba nga bokk xamuloo ni bu fekkee ni dañu tënk sa kàddu ci kalimatullah hiya al ulya du fu la neex ngay waxe du ku la woyit nga dem waxal ko kooku ñi nga xam ni ci kalimatu ladina këfaru sufla la tënk seen wax ñoom sañ nañu ku leen woo ñu dem wax parce que seen wax ci ankarul aswaat la dugg te wa inna aswaati la sawtul xamiir loolu tax nit dinga ko gis mu sañse yor téere bu rëy te fekk yàlla ko classé ci ñi nga xam ni ka mathalil ximaari yaxmilu asfaara loolooy tax am na ñu nga xam ni seen wax dañ ko tënk ci jawaahirul maani waxuma téere bi de seen wax auteur bi dañ leen tënk ci jawaahirul maani moo tax bu ñu waxee nga weddi leen rek rimaax bi écrasé la te waxuma rimaaxu téere bi waaw tax Seydil Hadj Malick di artu ma aadili لو حزت علما لم تلم هل عدل مثلي لم يكن بحرامي am na koo xam ni ku ko weddi rekk dafa fekk ngay xaru moo tax il faut faire très attention bu ko defee kon nag loolu góor gi waxoon ci turandoom te moo di wax ni huwa alxaybu fi shahaada c'est l'antimatière par excellence kooku ñi ko dégg barewul l'antimatière par excellence nekk antithèse par excellence nekk antilogique par excellence waaw boo dee wut foo koy dàkk da daan dégg naa mbokk yi nekk ci daara ji ñuy def benn entretien ci Mourchid tudde ko cercle du pouvoir mais cercle du pouvoir ñoom ñu ngi ko génnee ci leçon ba ma joxe woon ca université Ramadan tudd mulkiya bi tudd milkiya bi tudd malakutiya bi mulkiye bi mooy borom pouvoir yi buur yi dugg ci topp ko ba ci chef yi chef d'état mën na nekk chef d'état-major mën na nekk même chef d'entreprise mën na nekk képp yu wuyoo chef rekk yàlla ngi la sédd ci mulkiya waaye sunu boroom def leen di ñaan rawatina ñi ñoo tuddee buur yi ak chef d'état yi ñaar buñ ko def nit ñi buñ leen coloniser te buñ leen exploiter ñaar yooyu rekk la leen sant ci li mu leen sedd bu dee milki yewi mu sedd ci presque homme d'affaires yi mais ci ngay commencer ci homme d'affaires yi ba keroog ngay dem ci bailleur de fonds yi ñoom it ñaar rekk la leen ñaan bu jëkk bi mooy bu ñu escroquer nit ñi bu ñaareel bi mooy buñ leen chantage bu ñetteel bi nag mooy malakutiya bi mu sedd ci li ñoo xaw tudde bokk sëriñ si mais sëriñ si ñoo mujj a ñëw malakuuti bi ma nga commencé ca nabi yiina yi jaar ci siddiqiina yi jaar ci shuhadaa yi jaar ci saalixiina yi ku cay tegu soog caa tegu nabi yii ne yi ñooy porofet yi siddiqiina yi ñooy apôtre yi shuhada yi ñooy intérimaire yi saalixiina yi ñooy bénévole yi waaw ñeenti ñii ñoo fi nekk bu ko defee nag yàlla ñaan na leen ñoom it bu jëkk bi mooy bu ñu corrompre nit ñi bu ñaareel bi mooy bu ñu tromper nit ñi mu mel ni kon nag tur bi amul solo charte yi moo jara bàyyi xel waaw parce que yàlla dafa attirer attention yonent bi ni ko léegi dootuma proposer damay décider yonent bi ni ko lu ko waral mu ni ko proposé naa ña ca kaw ñu diit diital ni e ma proposé ñi ci suuf ñu diit diital ba noppi ni ma ë ñaari ë yooyu moo mat a wattu ë tajaalu fiha man yufsidu fiha jëmmi ë ji rekk wane ni kii d'accordul ñi ci suuf itam maanaam bi mu waxee ci kaw dama bëgg a wut ku ma wuutu ci kaw suuf malaaka yim doon waxal mel ni dañu xaw a diit diital ndax di ko wan li nga doon soxla boobu ba tey ñoo fi ne di la ko defal kon doo xëy xëy indi ku bees bëgguñu ko imposer te ñun lañu man yëpp defal nañu la ko yàlla laaj leen lu ngeen ma defal ñu ni ko tasbix ak taqdis mu ne weesu naa foofu ci àdduna laay jëm pour defar ko àdduna leneen la soxla lu dul tasbix ak taqdis ñu am kersa mu wàcc ci suuf proposé inna allaha qad baatha lakum taaluuta malikan comme boobu ñu ngi xëccoo kuy nekk buur yàlla ni leen proposé naa leen taalut mais première réponse bi mooy e euh, andaa yakunu lahu lmulku alayna wa nahnu axaqu bilmulki minhu wa almaal qaala inna allaha astafaahu comme daf leen proposé ni leen diw la bëgg mu nekk buur ñu ni ko nu muy man nekke ndax bu dee yay rekk ñoo ko ci gën a yay bi ci des mooy amul alal bu doy te ñun ñu ngeeg alal bu doy yàlla ni leen da ngeen tardé parce que désigné désigné naa ko ba noppi inna allaha stafaahu xam nga kii proposé ak kii désigné bu fekkee ni li ngeen wax nag amul nangam amul nangam mooy zaadahu bastatan fi l ilmi yàlla ni leen yokku naa ko courage physique yokku naa ko courage moral wallahu nag yuuti mulkahu man yasha yàlla du jël nguuram di ko teg n'importe où looloo tax bi mu waxee yonent bi loolu ci la ko wax nag ni ko dootuma proposé damay décider waaye sama décision yi tom waxal ñi ànd ak yow buñ ko discuter ndax ma xam fi yépp jëm أليف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد yàlla wàcce benn saar tudde ko suuratul suuratul ruum yonent bi da nga tekkaaral lu tax jëluloo position mu ni ko lu ma ci doon moo tax léegi bi Aliyun junjee sunu mbokk chrétien yi ñu jëlal contact ma xam ni day confirmer loolu ba ca am solo nag moo di wahum min baadi galabihim sa yaglibuun fi bidaci sinin lillahi al amru min qabl wa min baad yàlla ni maa leen choisir sax waaye bi ma leen choisiree dama jëkk opté ñu njëkk a am defet ba ñu njëkkee tenté dañu am defet waaye bi yëf yi ñëwaatee nag ma jox leen plein pouvoir kon nag bu jëkk ba mën a waaw bu mujj bi it mën a waaw moo tax bi ma gisee benn chefu parti politique mu mel ni kuy xaw a sayute tuuti ni ma man bi ma déggee ngeen dem élection présidentielle bële passé ñu wax nombre bi ngeen am ci ay votant man dama ruus man ko parce que doo nit waaw man ko parce que candidat ba man tànn moo ko moo tànn boppam moo demit wutal boppam ay parrainage am ma toog di ko xool benn fatiha jàngaluma ko ko waaw ma ni ko looloo tax mu demee noonu waaye lillahi al amru nag min qabl wa min baad nag mooy bii ñëw nii waaw parce que xam nga Sénégal ak li fi xew Alioune tudd na ko en tant que candidat ak yéeneem ak bu sañoon Sénégal nekk beneen Sénégal mais xam nga suñu cheikh dafa wax ni dafa dem Liban waaw dem benn dëkk bu ndaw ba mu fa demee te fekk yonent lañ fa suul nee na dëkk baa ngi rafet dëkk baa ngi naat nee na mu jékki-jékki wax ki mu àndal ni ko wallahi taabal balad waaye dëkk bi tey na waay nee na ki ma àndal ni ma yaa Cheikh Ahmed ma xool ko mu ne ma laa yatibul balad wa innama yatibu llahu fi lbalad waaw nee na mu ne ma dëkk du tey yàlla mooy tey ci biir dëkk moo tax ku bëgg sa dëkk tey da neexal sa yàlla moo tax bari lu ngeen di mettit lu ñun xam nañ ko moo tax ñu tànn leen ndax jàpp ni ci côté organisation mën ngeen ñu ca defal lu ñu mënul defal sunu bopp mais du tere ñu xam booleeg ragal ragal bi mooy lan dama toog ak Seyid Cheikh Ahmed Tidiane ñun ñaar rekk ci kanaape bi mu ni ma Moustapha ma ni ko labbayka mu ni ma gis nga dëkk bii mu ni ko waaw mu ni ma bala koo nite defar mu ni ko waaw mu ni ma lu rëy rëy wàcc fi lu nit ñi dootul tal seen bopp mu ni ma ba fu ne la nit di dugg pour wuti wàllu mu ni ma bu loola ñëwee nag ba dem bu boobaa liggéey réew mi dana yomb moo tax man leen ma booleeg tiitaange ndax xaw ma loola fu mu toll waaye di gëm ni seen cër xëy na wax na ko waaye am na lu leen yàlla defal moo tax il faut faire attention la mu wax ca kursu ba ni doom ju baax du seetaan ñu satoo baayam jar na tey de la waxoon ca géejawaay ga bañ ne la fin des mola mu ni ce n'est pas encore la fin wala boog bu may dem ma yóbbu ñëpp loolu la def suñu cheikh laata muy dem ñu bari jiital na leen ñu bari it bi mu demee jël si na leen lu tax nit ñi war di teey parce que foog ñu xam comme ni ko góor gi juñge woon ci phénomène yi te ni Seydil Hadj Malick moo ko wax phénomène yooyu di ñëw ci nit ñi te kenn xamul phénomène bi li ko tax a jóg lan la te nee na yi bi ci ëpp doole te jar a bàyyi xel mooy li ñoo tudd az zaman wal makaan muy espace ak temps parce que xam nga li ko commencé ci aadam ba ñëw ci isa al arshul aadami moo installé wu lépp ci doomu aadama lañ ko delloo bi isa demee ba mu muhammad ñëw al arshul insaani moo falu te muy lépp ci nit lañ ko delloo mais bi yonent bi demee nag yépp jaxasoo al arshul aadami nekkatul al arshul insaani nekkatul al arshul al arshul moo falu te am na loo xam ni bu ko yàlla bàyyee noonu ku defe ni mën nga ca dara dangay nax sa bopp sëriñ Cheikh mu la wax ni la fuqahaa yi ba ñuy daje na nangam dagan na nangam araam na fekk na yàlla ngi ca seen gannaaw mook ibliis ñuy signé seen protocole loolu looy def yàlla mu nangul iblis signé ak moom protocole moo tax mu ni bi yàlla joxe jullit yi aoudu billahi min asheytaani rajim nee na iblis xaqataay ni sunu borom dafay yéex ndax formé naa samay nit ba noppi looloo tax baatu imaan ci al arshu shaytaani asbaxa maridan ngëm ngëm gu wér amatul ngëm gu feebar rekk a fi nekk moo tax tey baax ndax bu jëkkoon chance bi mooy aljamciya bayna ruuxi nubuwa wa jasadi nubuwa yàlla dafa mayoon yonent bi ba bi muy wuy ji boroomam ruuxam ak yaramam duñu tàggoo looloo tax wa ma kaana allahu li yuadibahum wa anta fihim fekk yaa nga fa rekk am na lu may ruus duma leen mbugal waaye wa maa kaana allahu muadibahum nag ba nga demee ba sa loolu nekkatu fi xanaa wa hum yastaghfiruun xam nga bu ñu demee bay joxañu waa kër yonent bi naan ummatum mudnibatun yonent bi ni heureusement bi mu nekkee ummatum mudniba fekk na rabbun gafuur taxaw nii waaw ndax bu dul loolu bul xam luy xew waaw bu ko defee kon nag batu sécurité yàlla bàyyiloo na xel yonent bi nii ñi yore sécurité am duñu takk der waaw yàlla ñi yor sécurité du ñu takk der parce que yàlla jàpp na ni der ci ay animaux rekk la jekk loolu waxin la mais sécurité ci wàllu yàlla état d'esprit la loolu moo waraloon amir ba ba mu demee di seeti Omar ibnul Xataab te booba moo nekk amiral muminin ñu wër ko pale baak fu ne kenn gisu ko ñu mujj di ko wër fu ne fu ne ba ñëw fekk ko ci benn suufu tàndar ba muy nelaw buur bi ko doon seet ñëw tiim ko ba ci mu yëngal bopp bi di ko aminta fa nimta ñaari baat yu am solo wóolu nga sa boroom moo tax nga sañ tëdd fii di fi nelaw sans garde du corps waaw moo tax bu ñu demee ba sécurité ñu aj ko ci der rekk booy boo nga xam ni àdduna tukki na parce que bu boobaa xel ngannaay mooy jël place am jikko tenu mooy jël place te bu ñu demee ba àdduna bi li ñuy administrer nit ñi ci diggante ngannaay ak ci tenue rek lañ koy wéer nga xam ni kon àdduna stabilité jeex na fi waaw dafa tolloog nag li ci metti mooy seetaan mi waqafa alxalqu yanduruuna jamian كيف أبني قواعد المجد gi nit ka ko waxoon ca Égypte ni man dey dama jaaxle ñu ni ko lu tax mu ni maa ngiy jóg pour defaraatal nit ñi seen dignité ñépp taxaw di ma seetaan te li may def du pour sama bopp pour ñoom la waqafa alxalqu yanduruuna jamian kayfa abni qawaacida almajdi waxdi mu ne mais la ca métti mooy lañ cay teg ci ay baat bàyyi leen ko rek comme dafa sob toog leen seetaan ko rek loolu ay nit wax nañ ko fii ci senegaal te ñi ko wax ñu sant si lañu Moustapha du dafa sob rekk waaw bu ma sobee te dugguma ci yufu jàmbur te ba ma commencé ba léegi du jàmbur a may wax li may def ca kaw lay jóge te léeg-léeg mu romb sax Cheikh Ahmed Tijani xanaa kon ñu war a bàyyi jaamur bokk ah wax dëgg yàlla waaye xam nga yonent yàlla Zakariya keroog ba muy ñaan boroomam ñaanam nga ni ko ah borom bi wallaay tolluwuma sax fu may ñaanati ndax yegg naa ci béjaaw fu nga xam ni ak mage gëwuma ni lenn li dina yombati ci man bu ñaareel biit mooy sama soxna amul wërsëgu am doom waaye dafa am lu ma ragal sama gannaaw mu di doomu nijaay yi dañu bare doomu bàjjan yi bare doomu tànte yi bare te bu ma amul sama njabootu bopp bu taxawu li ma fiy bàyyi doomu bàjjen yooyu doomu tante yi ak doomu nijaay yi dana ñuy jël sama héritage yépp jaxat jaxate ko ba ñu yóbbu ko teg ko ci loxo ko ko moomu kon nag duma rus fii ma toll ma ñaan la nga may ma ku ma wuutu fahab lii min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yàlla dégg na ñaan nga te li mu wax xam na ko ma ne bu jëkkoon la doomu nijaay ak doomu tàntaak doomu bàjjan doon am mais léegi doomu bàyyeeg doomu ndey yi sax ñu ngi ci biir damay seetlu à chaque fois ma def waxtaan dina am ñu sant si Cheikh Ahmed Tijani moo leen jur seen première préoccupation bu ma defee waxtaan muy génn xaalis neexale ko ay nit yu dul kenn pour ñu saaga ma wax ni waxuma dara te ñiñ koy sant ki gëna tuuti ci ñi nga yar ci daayira bi mën na koo booleeg famem yëpp yóbbu laaxira waaye itam xam nga nit dafa am lu muy ëpple boppam gis nga rëwdu bii góor gu tëdd gi tëdd plan ba man maa ko moom bi fi góor gi jógee lañu dem fekk ko ci ay archive dem gaawantu pour defar ci réwdu bi di xaar nag pour ma attaquer leen ma xam ni lu tiim Cheikh Ahmed Tijani ba noppi war naa ruus di jàppanteeg nit pour loolu rawatina moom mu dem ba noppi di dégg ni maa ngi defante pour rien dafa tolloog nag li mu waxoon moom góor gi ni coono bi nekk ci war a yenu yenu jar na muñ ndax coono bi nekk ci waroon a yenu te yenuwuloo coow li coow li coow li li ngeen fii gis yépp ñu waroon a yenu te yenuwuñu la waaw dafa toll nag ak di bu xaaliyan asad waaw arab yee ko wax dafa ni till bu ndaw fu gaynde newul foog mu nekk gaynde gaynde fa waaw dañu laaj ci saxaar saxaar fumée ne ko lu tax balaa safara takk rek yaay njëkka jóg mu ne parce que bu safara jógee ba noppi ñu fàtte ma loolu tax mag ña dañu dem fekk ku kannasu ñu ne ko kaay ñu fal la ndax nga jëlal ñu fi diw ah moom it mu ni ay ca ba ñu ko falee ba noppi benn bis ñu toog ca pénc ma di ko xaar mu ñëw indi benn dàmb mag ñu ne ah saa waay de indil nañu dara tey mu ñëwee ba toog daal di xëcc dàmb gi di génne xooxu màngo yi di teg mag ñi di xoolante ni waaw xooxu màngo mu génne xooxu màngo yi ba mu jeex mu commencé génne xottu koko yi mag ñi di xoolante di wokkante mu génnee xottu koko yi ba mu jeex mu commencé génne xottu gerte yi ba mu paree mag ñi ni ko waaw ana li li woon fii mu ni mu ngi fii waaw ni mu ngi ci biir bi ñu ni ko waaw loolu nag mu ne am ah, moome ñoom amatuñu lu ñu wax parce que ñoo ko fal mu ni maam moomee rek mu jeex looloo tax li yées ci àdduna moo di fit wuy maas mais lu mu bon bon moo tane pas-pas buy maas te ci biir jamono pas-pas yi maas dafa bare sunu borom daan na ci attirer attention yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ko dafa mel ni ñi nga àndal def ci bari ñu nga xam ni wóoluwuñu waaye ni ko xaaral rek ma wax ak ñoom ñaari baat a di gëstu leen yaa ayyuha alladina amanu aminu yéen ñi ni yéen a gëm ba ànd ak yonent bi waaw wóolu leen nag xam nga yenn yi dafay nuru ñàkk wóolu ki nga amal affaire gis naa coow li xaw ci bare bi ma tànnee Ali dégg naa ngun ngun yu bare ñenn ñi yegg dañ ci dem di seet ay journaliste pour ñu di leen waxal li ci ñoom pour ñu bañ feeñ waaye ba dara ko kanam mois de mai la war a doon te fin ba ma woo capitaine bii mu ñëw ànd ak mam Babacar ma woo secrétaire général du parti bi muy Cheikh Youm man leen dem leen ngeen seetal ma proposel ma candidat ba ñu demee ba le 28 juin cheikh yum yónnee ma message message baa ngi ne ci téléphone bi ni ma seet nañu ma gisuñu kenn li ñu bëggoon dal mooy bàyyee la mbir bi yow loo xalaat rekk nga wax ñu ñun ñu aw ca loola ma ne kon nag baax na ngeen déglu ma imam Cheikh Mbeng bi invité naa ko ci toute une journée ñuy discuter waaye ma ni ko man de dama jaaxle tuuti mu ne ah ma ni ko dafa am istixaara bu ma doon def pour affaire u mais ci biir istixaara bi li ñu ma wax dañ ma ni ko sant ja man ko kon nag Alioune Diala waaw ma ne ko kon nag téléphoneel ma ko wax ko xalaat bi ñu am comme dafa nekk ci liggéeyu jaamur lu mu ci xalaat mu wax la ko après Cheikh contacté ma ca ngoon ga ni ma jot naa Alioune nee na ma wax la moom fu mu nekk yaa ko fa bàyyi waaw waaw privilège bu mu mën a am ak avantage yu mu mën a am ci Nations Unies boo ko ne fii mu bàyyi yëpp ñoo fekk la fa waaw ma ne kon nag baax na ndax di toog capitaine waxtaan ci moom mu ne ma je suis entièrement d'accord waaw ba ñu fa jógee ma woo leen ñoom ñu ko war a waxtaanee booba Alioune ñëwagul de waaw ma woo capitaine woo mam Babacar woo imam Cheikh woo oustaz Cheikh Male woo itam Cheikh Tidiane Youm ma ni maam boo demee nga wax leen ni leen lii laa gis. te mooy Alioune Dia bi maam ñëwee rendre ma compte ni ma duñ la wax ni la d'accord nañu cent pour cent mais deux cent pour cent waaw d'accord nañ ko ma ni ko nag baax na ma woo Cheikh Mbeng ne ko kon nag waxal Alioune bu bu paree rek mu ñëw naka lañ ko ko wax ca suba ga mu daal bind lettre de mission yónnee ma copie bi ngeen baal ma sax bu ma dee tudd yenn yi pour ngeen xam ni am na loo xam ne bu noon intérêt la rek am na fu ko nit ki di amee te mooy saleeram am li mu daan touché minimum c'est huit millions par mois mu gedd lépp waaw kon nag lu mel noonu nit bu def sacrifice bu toll noonu foog naa ni keneen ku mu mën a doon boo mënul def sacrifice bu nu toll it war nga mën a def lu ànd ak moom waaw